ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dama tabaski ji woon suñu dëkk moo tax fan yëpp gisu leen ma dellu si waat naa euh, fas yéene ànd ak yéen euh, chaque jour euh, diggante 11h45 jàpp 14h30 donc midi 19 mooy doog jot bis bi tey tombé na ak mardi 11 juillet 2023 déjà 11 juillet tellement le temps passe vite yenn sax yi ma tooñ xale yi ne leen tabaski bi ngeen doon rey seen bopp ñii di leb ñii di ñaan léegi jeex na et alors dañoo bëgg événement bëgg mbuux mais bon comme passé na ci jàmm ñu ngi sant yàlla am na nag yeneen événement yu ñëw mais bu ci ñëw rek euh, na ngeen ko jël ak euh, ak beaucoup de beaucoup de yemale sinon bu paasee rek tem gàcce am ci nest pas bu ko defee ñu fas yéene ànd ak yéen ba ca kanam ñaar laay boole li tubaab tuddee utile ak agréable on reçoit des artistes on reçoit des personnalités on reçoit itam des personnes yoo xamante ni ay initiatives yu am solo euh, la ñuy amal fii ci euh, dëkk bi euh, par exemple tey li nga xam ni décidé nañu ko waxtaanee man ak équipe yi ma àndal bu weesoo yenn cay actualité yoo xam ni cof nañu ko ci rédaction bu télévision Futur Média en attendant ñuy présenter journal bi daañu waxtaanee nawet bi bu ca kanamee tuuti puisque xam ngeen ni chaque année euh, ñun dañuy bàyyi ba mu ne këtt ni jonn ñu doog a dugg ci euh, xool naka la ñuy éviter lii tubaab tuddee inondation wala mbënn mi léegi nag inondation nekkatul yi fi Sénégal kese Euh, nekkatul yëfu Afrique kese daanaka dëkk boo dem euh, dañuy am problème boobu loolu nag li ko waral euh, Yacine yàgg nañu ko wax ci alam bi mooy lii tubaab tuddee dérèglement climatique alors fii nag Sénégal am na ñoo xamee ni loolu muy seen liggéey daañ ci recevoir kenn ci ñoom di borom xam-xam boo xamee ni mu ngi wuyoo turu Diadji Niang alors Diadji Niang mu ngi def lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu renouvellement ak réhabilitation ca ONAS dinañu waxtaan ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee curage ngàcc foos ak euh, euh, ñenn ñi nga xamee nii dañ leen di seetlu souvent euh, ñuy sàcc par exemple li nga xamee nii mooy téye mbalit mi mu bañ a dugg ci ndox mi donc nawet dafa am ay conduite yoo xamante ni moom la ñu war a tenir on en parle bu ca kanamee tuuti ci plateau bi et puis am na ay mbir yu ñu leen di baaxee yu rédaction bi liggéey bokk na ci match amical international bu Sénégal nar a amal ak Algérie ce sera pour le 12 septembre daañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye bu ca kanamee tuuti et résultat wu bac yi Euh, defe naa résultat yi ñuy yónnee ci euh, téléphone portable yi moom euh, ñu bëri xam nañ ci donc fan yëpp yéen a ngi gis ni ñi am bac yëpp ñu ngi jubilé seen ay way waajur kontaan donc c'est un premier grand diplôme et tous ces élèves yi nga xamante ni réussir nañu baccalauréat ñu ngi leen di féliciter donc daañu ànd ak Aminata Mbare Sow mi nga xam ni daanaka ñëwaat na ci résultat wu baccalauréat yi Euh, dem na euh, seeti euh, ay jury ngir ñu wax ñu ñoom itam naka la ñu dundee Bagoulen bi ak élèves yi alors résultats yi tamit dem nañu xool élèves yi nekk ca Saint-Louis naka la ñu ko dundee jury bii di 1604 on a été là-bas Euh, dinañ fa ànd ak euh, Ousseynou Diop si vous avez failli si vous avez raté cette information dinañ leen ko tegal bu ca kanamee euh, ki nga xam nag fan yëpp ñu ngi koy waxtaanee muy daanaka exemple pour élève yi nga xam ne ni ñooy jàng mu ngi tudd Yacine Fall. Yacine Fall nag particularité mooy euh, daanaka image am dafa viral euh, depuis quelques jours euh, puisque moom daanaka lépp la am ci ay notes yu baax ak bac bi nga xamante ni moom la am moom nag mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Ndande Fall amul téléphone portable nekkul ci TikTok amul réseau social xoolul dara jàng bi rek ko ñor moo tax elle fait partie des meilleurs elle est timide moom nag résultat yi nga xamante ni am na ko biñ ci marqué mooy mention très bien donc mu am bu toll ci dix huit sur vingt waaw dix ku sañoon am doom ju am dix huit buy bac donc parents yëpp ñi ko jur ak ko jurul ñëpp kontaan donc imaginer ngeen mbégte euh, ay waay juram comme quoi xale euh, bu dee def na li ko war euh, day sagal ay waay juram donc Yacine Fall moomu dinañu ñëwaat ci reportage boo xamee ni jot nañu ko def ci moom pour montrer que cette fille am na mérite Euh, ba euh, bac bi nga xamee ni euh, am na ko ak mention très bien ci moyenne bu toll ci 18 sur 20 on en reparle tout à l'heure midi 23 mooy doo ko jot am na itam ñu may laaj naan ndax am naa teraanga yu may maye xam naa teraanga yi damay bàyyi ba filek ay fan ñu ñëwaat ci puisque ñun ak service à valeur ajoutée bu télévision Futurs Médias ñu ngi ciy liggéey peut-être à partir de la semaine prochaine dinañ leen dimbaliwaat ci ay enveloppe yoo xam ne nii tàmmal nañu leen ko tuddee ko teraanga Sénégal xam naa dinañ ci ñëw Euh, d'ici euh, semaine euh, prochaine en attendant ñu ñëw ci li ma wax sànq jëm ci match amical international Euh, Sénégal nar ko amal ak Algérie ce sera pour le 12 septembre 2023 euh, ci stade Maître Abdoulaye Wade euh, bu ñaajo loolu nag fédération sénégalaise bu football moo nu ko xamal ci ay kàddu yu Mamadou Ndiaye daanaka remake lay doon ci finalu CAN 2019 bi rappelez-vous nga xamee ni CAN boobu noonu algériens yi ñoo ko remporté woon ci dëkk bu ñu naan Caire Mamadou lañ ci àndal. Sénégal Algérie di ab match xarito bu ñu jàpp bu ñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football le 12 septembre fii ci stade Abdoulaye Wade ñaari équipe yi nag daanaka miinante nañu bu ñu delloo tuut ci ginnaaw ci atum 2019 ci coupe d'Afrique bi ñu amaloon fële ca Égypte ca Caire Sénégal daje na fa ak ñaari yoon Algérie waaye ñaari yoon yépp Algérie daf ko daal di daan benn bal ci dara ci match de poule bi mu nekkoon match bu bu njëkk boo xamante ni gaynde yi daje na ñii di waa Algérie yi ka ne jiite woon di Sadio Mané Algérie daal di koy daan benn bal ci dara bu ñu fàttalikoo kii di Youssef Belali moo dugaloon benn bii boobu taxoon waa Algérie am ndam jiitu ci groupe C bi daal di qualifié ci huitième de final yi beneen daje bi di finale bi nga xamante ni moo nekkoon trente deuxième édition bu coupe d'Afrique des nations ci atum 2019 bi amoon fële ca Caire Algérie bu Belmadi ak Sénégal bu Aliou Cissé fas yéene daje ñaari yoon ci benn compétition bi nag final la ñëpp daal di leen xaar daanaka moo nekkoon choc bi ñëpp doon xaar ci atum 2019 fële ca Caire waaye bu ñu tàmbalee ci match bi ci ñaareelu minute bi rek la kii di attaquant bi di Bounedjah daal di dugal but bi daanaka moo dugal bii bi gënoon gaaw ci compétition boobu bii boobu moo joxoon tamit Algérie ndam mu tax mu jëloon ñaareelu coupe d'Afrique am ci histoire Sénégal daal di fa ñàkk ñaareelu yoon ab final coupe d'Afrique gannaaw 2002 bii nag le 12 septembre dinañ dajewaat ci match xaritoo waaye dina nekk yoon boo xamante ni Sénégal dina mën a jël revanche am gannaaw ba mu nekkee champion d'Afrique ci atum 2022 fële ca Cameroun normalement vous appelez ça remontada wala euh, xaw ma ndax remontada bi day nekk après euh, après après match bi mais match international amical euh, dinañ ci ànd ak équipe bu Sénégal ce sera donc pour le 12 septembre 2023 ci stade Maître Abdoulaye Wade Petit Pelé <laughs> yoo xamoon nga ne ku li àll dinaa kaa ah Petit Pelé Petit Pelé daa nga may woowee tey non il faut mu woowee le Petit Pelé yoo xamoon nga ni par la force tey tey tey tey tey ci petit pële laay njëkk a commentaire ñu passe la bal bi kan moo la ko passe ci caméraman yi. Bouba Samb. ah c'est dommage que je l'entends pas est-ce que vous pouvez augmenter euh, euh, pour ma dégg Mamadou Ndiaye bu baax. Bouba Bouba Bouba Samb Bouba Samb moo def liggéey bu ne. moo la ko sànni ah. ah, ah. mais petit pële est-ce que xam nga ni gars yaa ngi koy xaar. mais non gaa ngi koy xaar nag. man musuma gis lii. mais yow ñëpp la ñuy woo fi mu ne nii waa kër gi ñëpp la ñuy woo. mais xale yi bëgg nekk ay ay Sadio Mané ñi bëgg nekk Idrissa Gana Gueye dafa bari. non y en a plein. ay futurs footballeurs. cest à dama foogoon ni ay concours way ak émission way ak émission fecc rek la sénégalais yi bëgg mais émission sport pour les enfants euh, pour pour pour pour les pour loolu loolu il fallait le faire ah. non dafa dafa dafa intéressé dafa intéressé xale yi fi mu ne nii xale yi gis naa léegi ay parents yi ñuy yi ma dajal léegi nii ñu ne sama seen doom yi depuis bi euh, bande annonce bi commencé ba léegi. Mhm. wax benn la dañuy forcer seen parents yi pour ñu yóbbu leen ñu bokk petit ah ba tey. ah ñi ngi inscrire ba tey ñi ngi sonal bu ba Samb ci numéro téléphone yi. ñi ngi woote ba téléphone bi di bëri ah? seen petit gàlle pële seen petit gàlle pële seen petit gàlle ma jox sama sens bee <laughs> seen petit gàlle mais namoon nañ la nag yow tamit El Hadj ñaan nañ la ko ci njëkk may gis nii dama fay escale rek nam ma ah? man damaa escale rek nam ma leen de <laughs> Guinée laa jëm Guinée mais gis nga mujj gis mujj gi gis nga challenge bi waaw Will <laughs> Mass Ndiaye bëgg kaa naan ma yaa ko daan yaa ko daan animé jamono bi ngay yéeg ci moto bi uh-huh. <laughs> donc petit pelé euh, euh, inscription yaa ngi continuer c'est ça ah ma ne inscription yaa ngi continuer dégguma la dégguma la bu baax ma ne petit pelé inscription yaa ngi continuer non si ñi ngi continuer waaw super waaye ñi ngi continuer ñi ngi continuer di inscrire mais balaa ñoo balaa inscription yi xam nga dañuy def euh, tournoi présélection mm-hmm. def nañu zone bu ci nekk dakaar la ñu jël xaaj ko en neuf zones. Mhm. mooy diggante banlieue bi biir dakaar fii ci euh, centre ville bi. dañ ah, ko def ay zone A day mel ni comme euh, seen loolu ngeen di organiser yéen Sénégal xam nga mën na ma yàgg France moo tax. Ah? seen affaire seen affaire boobu nawet navetaan. waaw navetaan navetaan xaw mais version U17. ah ok comme version U13 U13. <laughs> dégg la de xaa xaw immigré yi dañoo fuuy koo ci gis ah oui am na ko ma ne démb yow yow tu es toujours à la 2STV ma ne ko oui maa ngi fa di def elles sont toutes ba tey. <laughs> alors Pape mais yow yaa ngi yaa ngi 2S ba léegi. sama jëkkëru benn mag mos nañoo ànd ñuy waxtaan di di waxtaanee saa neex quoi man ak sama grande sœur boobu c'était à New York. Euh, dans mes appartements bien sûr. Euh, euh. et son mari xam naa ancien Modou yàgg Amérique jékki-jékki ne mais c'est quoi ça neex. ma ne ko saabu la Sénégal moom la ñuy raxasoo. <laughs> ak ñoo fuuy yàlla baax na donc seen affaire boobu mu tudd nawetaan. nawetaan ah. voilà voilà voilà donc nawetaan version U17. waa non U13. ah U13. U13. super super mooy ñi amagul ñi amagul 13 ans. Mhm. léegi mu commencé ah. léegi mu commencé le le le la ba le 5 euh, août. le 22 ba le 5 août. waaw incha allah waaw lu tax doon mais vous me fatiguez là. xam nga naan di nga wax loolu. non mais c'est vrai parce que parce que vous si da ngeen ngéwelee on vous dit on dit pas août mais on dit ou mais comme d'habitude suñu nopp août la yàgg dégg yemal ci août. wax nga dëgg. waaw. wax nga dëgg nag. Pape Pape Pape Samba aide-moi aussi non mais dimbali. <laughs> non non mais El Hadj namoon naa la namoon naa la non non man dama escale mais j'ai dit c'est vrai ils disent que waruñoo wax août. waaw ou la ñu war a wax. dëgg la waaye loolu dañoo bàyyi ba ñu màgg ñu doog ñu ko wax. yow bi nga nekkee xale ut rek nga foogoon la ut rek lañ daan tubaab bi dañu yàgg nax quoi <laughs> y en a marre avec ces grammairiens hein donc arrêtez de dire où on dit out dire où il paraît mais neexul ci nopp mais namoon nañ la quoi euh, yii ñoo tax ñu nam la yii non non man namante maag yéen de da nga ñëw escale escale mais ñaan nañ la ko ci njekk nag. non ma sekk yéen yooyu sax sekkatuma ko génn ndax du ma dem troisième mandat. borom réew mi def na vidéo. non yooyu yëpp garaawul. <laughs> xale yi def nañ challenge ñëpp ne la ñibbisil ci jàmm. ñëw ma nga commencé wax <laughs> Youssou Madi. Youssou yooyu la ñuy def Youssou Madi tu es le meilleur am na ku ma woo dem ne ma Youssou Madi est-ce que tu as reçu ma ne ko non <laughs> allez match amical bi Sénégal Algérie ce sera pour le septembre aussi. waaw ouais, effectivement match euh, amical Sénégal Algérie démb la ko waa fédération Fesal mu nekk match bi nga xamante ni voilà remake la comme ni nga ko déggee sànq ci élément maanaam dañuy koy waat ndax bi ñu dajee ci 2019 fële ca Égypte ca Caire ñaari yoon yëpp Algérie dafa daan Sénégal. Hmm. Euh, ci benn compétition daal di jël Coupe d'Afrique ñaareelu yoonam. moom naari dañoo aay de. Euh, fële ca Caire la woon mais bii pas dina nekk match boo xam ne revanche la. ndaxte Belmadi di entraîneur bu Algérie euh, moom dafa gagné Aliou Cissé ñaari yoon te ñoom ñaar ñoo xawandoo ca France naa ni bii dina nekkaat loo xamante ni daal match bu am solo la te ñoom ñaar ñëpp ñoo mujjee nekk champion d'Afrique Algérie moo ko jël 2019 Sénégal jël ko 2022 ah. donc match bu am solo la fii ci stade Abdoulaye Wade le 12 septembre bi incha allah El Hadj ok mais match amical kese lay nekk. match amical kese la. parfait bu loolu weesoo lan nga ñuy wax euh, ci li xew biir internet bu ca kanamee yow lañ ciy àndal. Mhm. voilà ci kanam dinañ ñëw ci li euh, réseau social bu bees bi xam nga ko élage fi mu ne nii xewul woon France nag. non yegsee fa. waaye yegsee gu fa fii rek. je suis hyper bien informé ah. <laughs> oui bien sûr des infos. je sais je sais je suis au diapason de ce qui se passe dans le monde. Uh-huh. tu sais àdduna léegi tëjootul. voilà. tëjootul ah. non non de. amul lan moo xew seen réew ma amul lu xew fii cest dire léegi amatul lu yendu fii fanaan fii léegi lépp a yendondoo fanaanandoo. li xew Amérique da nga koy yëg à l'instant T. mais giso exemple li xew France bërki démb. ak Nayel. je j'entends pas bien. ma ni gis nga exemple li xew France bërki dem ak Nayel. ah ak le jeune la qui a été tué voilà à 17 ans. gis nga génération boobu noonu. j'étais dans les manifs d'ailleurs ah. voilà <laughs> ah bon. xale yee fa nekkoon. eh ma demee ci manifestation yi dama laaxatu de <laughs> balaa ñu naan ah, yow dëkk di manifester ñëw <laughs> gaaw nañ ci. lii laa la naroon wax ne yow yow sa dëkk manifeste ngeen ñëw. nii laa masque laa def nii naan justice pour Nayel justice bëgguma ku ma xàmmee. parce que buñ a xàmmee itam ñu ne ah ouais ni pas manifestation yi eh. mais. Euh, yu France yi da ngay def c'était c'était c'était c'était chaud à part. waaw mais mm. euh, loolu lay wane ni àddina léegi euh, léppay ñëpp comme ni nga ko waxee de léegi mm. dafa dafa dafa tuuti daal. Mm-hmm. ci eh, wàllum information ci wàllum xibaar. Mm. Euh, ci wàllum réseaux sociaux yi surtout. lii nga xamante ni nag tey dinañ waxta dinañ ñëwaat depuis bañ ko lancé ba léegi di threads mi nga xamante ni dañ ko lancé barki dem rek waaye léegi def na plus de cent millions de téléchargements oui mais je pense que yegseegul yegseegul Sénégal lay nii. si yegsi na. ah na fii am nañu ko ci réseau yi ñi ngi fii. xale yaa ngi ci kii abonné. non ñi ngi fii léegi France la yegseegul woon. ah d'accord mais ñi ngi fii 100 millions. ci monde entier depuis bi ñu ko lancé ba léegi 5 jours rek la def. 100 millions de de de téléchargement ndaxte euh, diggante ki nga xamante ni mooy Elon Musk ak euh, Mark. Mhm. Euh, ñoom ñaar actuellement c'est diggante bu ñagas la concurrence bi jax na lool. ci ñaari euh, milliardaires yi nga xamante ni ci bokk ci wala moom ñi ci réseau social yi gën a rëy ci àddina ñoom ñaari nag fi ne ni ñi ñi ngi euh, xëccoo ñenn ñi kenn ki porte na ko plant envoyé ko ay euh, document ne ko dafa sàcc idéem maanaam da ko plagiat kan ci Mark Mark Zuckerberg wala. waaw kii di Elon Musk moo envoyé moo fas yéene porté plainte kii di Mark. mais Mark daa gëjoon Twitter dégg naa. ah. gëjoon na gëjoon na tweeté. moom dafa gëjoon tweeté waaw. mu jékki-jékki rek tweeté. mu jékki-jékki rek. moo mën a ta moo mën tendance nag. <laughs> mais da koo ci xeex. ne ko nañu daje ci ri tendance yooyu neex. <laughs> tendance day neex man boo ma boo ma boo ma defee nii neneen laay fayoo neneen. voilà neneen. mais nag noonu la def nag. ah j'ai vu. xoolal dafa jékki-jékki lancé ko ne ko. Uh-huh. Euh, Elon Musk na ñëw ñu xeex daje ci ring xeex. waaw ah. nekkate boobu mi ngi lancé réseau social li ñu duppee marketing digital la def. ah là là. léegi ñu teg ci quelques weer rek mu lancé lii lii nag def buzz fi mu ne nii jiitu ci réseau social yépp ci mbirum téléchargement en espace de cinq jours rek plus de cent millions d'utilisateurs mhm. donc loolu nag moo jur euh, coow lu xam naa ni looloo tax Elon Musk fi mu ne nii yëf yi neexu ko lool mhm. mu daal di euh, koy porter plainte nañ ci ñëw gën ko détaillé tey bon je te retiens pas bàyyi ma bàyyi la nga dem préparer ko jeex na euh, tey kan nga ciy àndal mairie Baye Diouf mi ngi ñëw. ok donc à tout à l'heure mi ngi ci ginnaaw. merci Petit Pelé. <laughs> inscrivez-vous ci Petit Pelé peut-être Pape Samba euh, dinañu woon bande annonce bi bu ca kanamee tuuti euh, pour permettre à ces euh, jeunes footballeurs ñu bokk ci programme bu exceptionnel boobu nga xam ni sañ naa ne c'est une première fii ci Sénégal d'avoir rendez-vous bu mel noonu en termes de sport donc merci Mamadou Ndiaye on vous retrouve tout à l'heure yow ak mairie Baye bu ko defee ngeen wax ñu li xew biir internet nawet. nawet baa ngi ñëw wax naa ko sànq tey dinañu sensibiliser euh, ci wàllu euh, mbënn mi ñu profité ci nag euh, ndokkeel Mamour jàlloo mu baax mi nga xamee ni moom la ñu dénk ONAS tey nag bëggoon naa ñu sensibiliser bu baax ci lépp loo xamante ni jëm na ci kondir yeek ñoom seen ak naka ngeen war a taxawee xam nga kalaasu papalaam gi màgget jabaram bu ko joxee mbalit bi wuy am na ay góor yoo xamante ni dañuy xëy jël mbalitu kër gi seen jabari jox leen ko ñu dem tuural leen ko romb rek sànni donc mbalit boobu ngay sànni mën na indi ay blocage ci yoonu ndox bi ba euh, ñu am ay inondation yu metti loolu nag defe naa bu ñu ko bëggee éviter baax na ñu déglu euh, borom xam-xam yi moo tax ci kanam tuuti euh, daañu dalal kenn ci borom xam-xam yi bu ko defee ñu sensibiliser waaye itam joxe ay technique ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu lii tubaab tuddee curage euh, ci région de Dakar ak région yi et puis waxtaan itam ci impact euh, tabaski bi xam nga tabaski diggante mbàq ak Grèce Pape Samba Thiam euh, bu rayee ba ba fulli mbàq bi day jël lépp sànni noonu rek affaire yi bloqué xam nga am na ci ay koñ yoo xamante ni daa mel ni nawet la ñu nekk et pourtant nekkuñu nawet loolu impact tabaski bi la mais heureusement ba am na liggéey buñ ci def euh, on en parle et puis du fonctionnement des ouvrages en temps de pluie euh, ce sera donc trois points yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan euh, bu ca kanamee tuuti midi 37 mooy doog a jot ñu ñëw nag ci résultat wu baccalauréat bi tadadada li ma ne démb système résultat yi par SMS dina crise cardiaque loo ay élèves wala crise cardiaque loo ay parents j'ai vu si quelqu'un sama mbokk taalibe la euh, mu ngi naan non xam nga góor leen diplôme bi xaw ma lan mais diplôme bu mag la xale yi certificat sax bu ñu ko amee dañuy célébrer man sama doom ji daaw la am certificat mais daa meloon ni ko am doctorat xale bu ci am BFM day mel ni ko am diplôme euh, yu toll noonu mais c'est normal euh, ku ne ak niveau bi nga toll la preuve euh, ku sañoon sa doom bu dee bac am examen regardez deux ou trois jours yëpp parents yi nga xam ne seen doom yi réussir nañu baccalauréat ñu ngi jubilé ci réseaux sociaux yi statut boo romb xale bu ci sa waajur bu ci sa doom am bac dugal nga ko publier ko ndax fierté la et gis ngeen ni euh, daanaka souvent dañuy gis ni euh, njàng mi ak njàngale mi dafay faral di euh, sooxe diggante grève manifestation ak yenn ci ay détails yoo xamante ni ñun ñu ngi koy dund ci wàllu politico social mais heureusement que élèves yi ils n'ont pas démérité dem nañu ci centre bi nga xamante ni mooy sergent Malamine Camara fekk nañ fa ay jury nga xam ne ni ñoom ñoo doon joxe résultats yi j'aimerais qu'on y revienne des résultats avec des mentions très oui loolu la ñuy ñaan am bac neex na mais boo ci amee mention yaa euh, ya de tel euh, atmosphère boobu nag euh, daanaka da doon metti pour yenn ci élèves yi entre attente et échec regardez ce reportage bu Aminata Barre saw ak Amadou Ba. Camara 200 530. taxawaay bi metti lool ci ñoom xaar gi tamit ngir xam fan ñu féetee ñu ngi fii ci centre Sergent Malamine Camara. du résultat baccalauréat général. Oasis plus 200. bi président jury bi yéegee ci kaw ngir jottali leen seeni résultat ambiance bi daal di tàmbali soppeeku. 200 721 Oumy Faye passable lycée des Parcelles Assainies. 201 780 Abdoulaye Ngom lycée Aminata Sow Fall Padois Builders. ci suñu kanam Khadijatou Ndiaye xale bi lee moom mooy première ci centre am ndaxte mention très bien la am. vraiment kontaan naa moom xala xaaruma ko woon sax dama kontaan bay jooy yow billaay pour la première fois je m'imaginais même pas être première du centre en fait. ci centre bi nag ñu fi am mention daanaka bëri nañu lool ndaxte kii di candidat série S1 moom it moom mooy premier ci centre am. résultat yi mën naa wax que ni bett na ma ndaxte S1 yi comme gars yi dama tiitoon ni ñëpp quoi. c'était naturel bi may yuuxu sax tey ma ko woon. ay scène de choix waaye tamit ay scène de tristesse ñu nemmeeku ci centre bi lii nag di li faral di nemmeeku saa yu ñuy joxe résultat baccalauréat général. 619 Khady Seye. c'est vrai que euh, atmosphère bi wax naa ko sànq ñaari ñaari ñaari sentiment ngay am euh, tristesse euh, ak contentement comme ils disent donc gis nañu centre boobu ku góor ki jël premier ak ki ku jigéen ki jël premier ku ci nekk am mention très bien je sais pas trop mais j'ai l'impression que ren laa gën a dégg ay mention xaw ma ndax daan na bëri ci at yi passé Euh, je sais pas trop mais daal euh, li ma dégg daal diggante bërki démb ak tey euh, ci ay mention bëri na donc à tous ces élèves ñu ngi leen di féliciter voilà Sega Bass Ba merci mon ami Paté Ba donc Sega Bass Ba ñu ngi koy féliciter moom suma doom la dafa réussir baccalauréat doomu Paté Ba bu télévision Futur Média bu groupe Futur Média Paté Ba neex a fekk Médina laa ko tuddee ah moom laa tuddee sax monsieur le maire donte Médina am na maire mais man mooy sama maire man te dëkkuma Médina xanaa du maa waane donc Pathé maa ngi koy euh, bégee bu baax et on félicite euh, Sega baas Ba xam naa nag maamoon jot mais dama escale je dois retourner euh, <laughs> quelque part <laughs> mais su ma amoon temps dama leen di organiser euh, grand arrosage pour tous les bacheliers je te jure képp ku am bak képp ku am BFM ak xale yi am euh, certificat ma def ko xoola benn benn samedi soir mobiliser cosaan waaw ah, waaw invité xale yëpp def xoola grand arrosage c'est une bonne idée ah mais juste dama nekk escale damay dellu France seen dëkk bi dafa tàng et puis dafa mbooya quoi dafa mbooya seen canal yi ngeen ci weñ yi ciy nekk ndox mi ball fu ne ah inondation bi ñëw xam nga moo tax tey bi ma ñëwee en tant que en tant qu'étranger j'ai fait appel à un professionnel pour parler de seen kondiir yi <laughs> ni ngeen koy ŋàccee noonu ndox mi des ci il va venir nous en parler léegi nag man li ma mën mooy toog ci télé bi jox leen ay conseils mais yéen pour la plupart sama fecc yeeg sama waxi dof yi ak samay ree ngeen di gën a bàyyi xel mais dafa am ay invités yoo xamante ni bu ñu ñëwee la ñuy wax njëriñ gàcce ne mënoo koo xam fekk euh, dégluwuloo ko donc euh, na ngeen xaar loolu bu ca kanamee tuuti mais grand arrosage moom bëggoon naa ko def mais bon euh, je verrai je verrai je verrai grand arrosage loolu dina neex de ah invité seen woykat yi ñoom visé xale yi dañoo am seen ay star bopp de visé <laughs> ñoom vigi euh, ñoom ñan tekke mi ne tekke alwaxa mooy kii tas beneen woykat bi ñu doon sëy tas rek ku jigéen ki xew maabo Mia voilà Mia ak kan waxaat ma artiste su xale yi man xam nga Viviane rek laa xam Baye Mass et eh, Baye Mass xew na de Baye Mass gis naa ko mu conférence de presse sax et eh, xale yi dañu am seen monde de lan ngeen foog Baye Mass j'ai vu que def na conférence de presse ya a y a qui the best man mënu ma prononcer seen turu artistes yi sax H the best voilà am na tamit beneen beneen beneen artiste bu bu xew jaamaan mooy jaamaan express et eh, jaamaan du xale de xaajjem boobu xaaj xaaj Martin Luther King la de. jaamaan moom ngeen jàppee xale du xale de jaamaan paala de tuuti laa ko magee te man fekkee naa uffet wàññi xajjem boobu boo ko xoolee rek te man ku ma xam rek mag na bu dee xaw ma la nag ça veut dire que t'es booy boy quoi et ma neex ci booy yi su ma tasee ak ñoom ci ay concert père lañ may woowee quoi pour la première fois de ma vie may dégg père <laughs> des fois damay boole ñaari sentiment sentiment d'énervement genre je yi ak sentiment bon oui ils ont raison mën naa leen jur mais ils ont beaucoup de talent ces jeunes artistes vous les voyez souvent euh, ci euh, seetu Sénégal ak Abba No euh, donc on les ñu ngi leen di encourager ñoom ñëpp comme quoi jamono bu ne ak la cay xew donc staru boy xëy na bu ñu leen dee organiser le grand arrosage euh, dinañ leen invité wala ñu def ko sax biir Dakar na dox pas pourquoi pas mais en tout cas on félicite euh, tous ces jeunes euh, élèves yi nga xamante ni am na nañu seen baccalauréat surtout ak mention à propos de mention très bien avant de vous présenter xale bu jigéen bi nga xamante ni mooy Yacine Fall nga xam ni fierté Ndandu Fall la j'aimerais ñu dem ci beneen dëkk xool itam ndongo ya fa nekk naka la ñu dundee résultat wu baccalauréat bi alors résultat yu njëkk yi ca euh, Saint-Louis euh, daanaka euh, bachelier yi ñu fa fekk ñoom dan doon jubilé déjà ñu ngi xalaat université c'est bien ak seen i orientation dem nañu fi nga xamante ni mooy jury 1604 président jury bi mu ngi tudd moom wax na jeunes yi pour ñu redoubler d'efforts bu ko defee ñu mën a continuer comme il faut seen cursus scolaire après le baccalauréat nu Diop évidemment ak Habib Seck ñoo ñu teewal foofu ca Ndar sama dëkku xaar bi yàggoon lool ci candidat yi nga xamante ni ñu doon def baccalauréat ci lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall waaye nag ci cappaandaw ga xale yi daan nañu wane seen bopp mu mel na nag ndar daan nañ am ay kragam Oumou Mohamed Doudaaf moom mention bien l'âme moo jël première ci jury 1604 tey dama kontaan parce que man maa jël première ci centre bi maa ngi ñaan yàlla yeneen ndam yu bëri topp si alhamdulilah candidat yi nag ñu ci bare ci ñoom sonn nañ ndaxte ay weer yu bare la ñu lay toog di jàng mu mel ne nag léegi ñu mën a nokki bu baax a baax. di gërëm suñu waajur yi di gërëm suñu professeurs yi ñu jàngal école ak genre yooyu noonu ak suñu camarades de classe yi nga xamante ne ñun ñaar ñun ak ñoom ñoo doon andiwandoo épreuve mais alhamdulilah sant yàlla bu baax ginnaaw ba ñu amee seen ay baccalauréat ñenn nañu ci bari ci ñoom nag ñu ngi xalaat ñi nga xamante ni ñooy seen ay wayjur. waaw fi mu toll moom sama papa dañ na lu ne si man yëpp daal la ci lycée Cheikh Omar ñenn ñi nga xamante nag ay candidat la ñu woon daañu xaar beneen at moo tax sax président jury bi mu ngi gën a ñaax xale yi ñuy gën a góorgóorlu. résultat yi nag waaw baax na mun nañ ne baax na baaxul parce que munoon nañ weesu foofu noonu xale yi daal ñu ngi leen di ñaax ñuy gën di jàng parce que correcteurs yi seen liggéey lañuy def. voilà dañuy corriger sur la base de voilà loo xamante ni euh, en concertation d'abord entre ñoom. premier tour bi jeex ñaareelu tour bi nag ñu koy xaarandi ci élèves yi nga xamante ni dañu li nga xamante ni mooy oral. laataay loolu ñi nga xamante ni nag ñoom amuñu daañu xaar at bii di ñëwaat ñenn ñi nga xamante ni nag ñoom am nañu tàmbali nañu jubilé. voilà donc c'était à Saint-Louis euh, euh, résultat général yi euh, bi mu génnee euh, xale yi am ñëpp dañ doon jubilé et puis il pense déjà à l'université c'est bien euh, président jury bi ci boppam gén ngeen dégg ngeen li mu wax mu ngi leen di ñaax pour ñu redoubler d'efforts donc à tous ces élèves ñu ngi leen di féliciter ci kanam tuuti dinañu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média ci journalu wolof bi ci diggu bëccëg bi donc soxna naata lañ ci àndal en attendant dama leen bëggoon présenter xale bii nga xam ne nii ren euh, daanaka mooy euh, mooy staru bac bi voilà mën naa ko waxee noonu et puis euh, image am euh, dafa virale euh, depuis déjà jour jours euh, puisqu'elle a tout raflé ci baccalauréat bi mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Ndande Fall voilà Ndande Fall defe naa xam ngeen ko wala xamu leen Ndande boo di Thiès la nekk voilà Ndande Fall daanaka région de Louga stafurla côté côté Kébémer boo di Louga waaw xam nga Louga nag dëkk bu neex la ñoom dañoo mën xew dañoo mën bis xale bi nag wane na ni euh, bu Louga mënee xew mën bis noonu loolu la waa Louga mënee jàng moom nag wane na ko puisqu'elle a eu dix-huit sur vingt euh, moyenne euh, buy wane ni moom elle fait partie des meilleurs élèves du Sénégal donc ñu ngi ko fekkoon foofu mu ngi bëgg a nekk médecin oui mën nga koo nekk c'est possible daanaka nekkul nee ci benn réseau social nekkul Twitter nekkul Instagram nekkul ci réseau social bi xale yi xewal di TikTok euh, nee na amul sax téléphone portable n'est-ce pas et euh, j'ai rencontré un parent d'élève qui di qui disait euh, même bu fekkee bëgg na ay doomam méngoo seen dund méngoo ak jamono euh, année scolaire bi yëpp day denc seen ay téléphone portable peut-être ba vacances ou ba week-end ba week moom itam neena euh, nekkul ci benn réseau social elle n'a même pas de téléphone portable euh, elle est timide jot nañu def tout nag ba jël xalaatam ci résultats yi nga xamee ni am na ko avec mention très bien daanaka am na moyenne bu toll ci dix-huit dix-huit sur vingt ñu déglu sunu sunu sunu sunu sunu meilleur élève bi di yasin Fall Je suis, nous devons être comme rivière pour pouvoir développer notre métier. Je remercie encore mes professeurs et le lycée d'Andan aussi, c'est un très bon lycée. Le, système éducatif est vraiment très, très bon. C'est pour cela que nous notons des résultats et ce n'est pas la première fois. Nous avons obtenu des résultats très bien et ce n'est pas la première fois. Et merci aussi à Monsieur Gay pour cette cérémonie organisée et j'espère que ça va vraiment pousser les élèves à adorer les études encore plus. Je voudrais vraiment être médecin et aider tous les, toutes les personnes qui sont dans le besoin. <laughs> voilà donc euh, ñu ngi koy féliciter moom Yacine Fall euh, elle est très timide hein? elle remercie un peu ses professeurs on, on, on lui a organisé une fête je pense euh, mu joxe impression am ci bac bi nga xamante ni admise na ko avec une moyenne de 18 sur 20 mention très bien donc moom mu ngi fekk baax foofu di Ndande Fall di dëkk bu nekk ca Louga d'ailleurs am na texte bu am solo boo xamante ni docteur Massamba Gueye euh, posté na ko euh, ci ay comptam euh, ak hashtag bii di nay rafet mu ngi wax bon courage à tous ces élèves qui ont travaillé dur mais qui n'ont pas pu réussir au baccalauréat 2023 ce ne sera que partie remise incha allah voilà donc c'est un bon texte boo xamante ni peut-être Euh, bu dee am ngeen euh, page yu docteur Massamba Gueye allez lire ça euh, ou bien naa ko envoyé Pape Samba pour vous montrer ça di encourager xale yi nga xamante ni malheureusement jàng nañu mais amuñu li nga xamante ni moo di baccalauréat quant aux élèves qui ont réussi mu ngi leen di féliciter et il dit quant à toi qui a réussi au bac repose-toi prends quelques jours de vacances vacances dafa am solo ah le texte est là merci Pape Samba oh. Pape Samba se place du TFM bàyyil sa place du fii Pape Samba sa place CNN la sa place tf la sa place France 2 la <laughs> yàlla baax na Pape Samba dafa baax <laughs> bravo donc texte bi ma xool fan la nekkee parce que aw ma retour donc fii lay nekkee sama côté bi regardez donc docteur Massamba Gueye nii la ko waxee quant à toi donc qui a réussi euh, mes félicitations repose-toi euh, prends quelques jours de vacances et profite de cette, de cette accalmie pour réfléchir à ton choix d'orientation, soit pour le fixer euh, définitivement, soit pour enfin le faire. Euh, ce choix risque de t'accompagner toute la vie durant, alors ne euh, le confiez pas aux, com de tes amis. Ne fais pas euh, de choix en suivant la mode ou pour plaire à quelqu'un. dégg ngeen bu baax li muy wax j'espère que xale yi dégg nañu français waaye xale yi tamit seen français yi des fois daf may xaw a jaaxaat de ma mère quand je parti au village le professeur m'a demandé de venir ici euh, mais ce texte-là c'est tellement important et pour euh, ñi am bac et pour ñi ko amul euh, donc texte de réconfort là donc ne faites pas le choix en suivant la mode ou pour plaire à quelqu'un c'est un choix de vie pour au moins tes cinquante et cent prochaines années de vie dégg ngeen bu baax li professeur bi wax et puis écoute tout le monde mais n'entends que ton talent déglul soxol fii nag Sénégal dañ lay guider naan la defal lii defal laa defal lii defal laa defal lii defal laa mais yow déglul waaye concentré wul ci talent bi nga xamante ni moo nekk ci yow euh, pour pouvoir réaliser euh, euh, tes envies réelles et avoir une bonne carrière avec beaucoup de raison voilà donc loolu maa ko ci yokk tuuti fais un choix lucide et personnel en cas de doute confie-toi à de vrais professionnels de l'éducation bañ ma déglu sama classe geeg Pape Samba Thiam ci koñ yi la ñuy nekk rek booy bu am bag booy booy da nga il faut nga dem université nga jàng lii ak laa ak lële il faut écouter les vrais yoo xamante ni ñu ngi jàngale ci wàllu orientation ñu dimbali la ci et puis euh, demande-toi quelle sera la force euh, de la filière que tu choisis euh, quand tu euh, auras fini ta formation euh, mais euh, pas ces opportunités en 2023 donc merci chers parents chez chers parents qui a accompagné cette réussite nos enfants ne sont pas le miroir de nos échecs donc Euh, ne les ne les façons euh, pas à faire des choix pour nous euh, bon enfin j'arrive pas à lire la suite mais en tout cas c'est un texte qui est très intéressant texte disponible ci compte yu professeur Massamba Gueye qui est aussi tiktoker influenceur am na compte TikTok où il donne beaucoup de conseils ci wàllu littérature ak li nga xamante ni moo ngi koy def ci wàllu jàngale donc merci pour ce beau texte docteur Ma Samba Gueye euh, ma Samba te su may lii damay dégg tubaab fàtte ñee moom ma vocal nii ma déglu vocal bi wala ma bàyyi ba ci kanam bon <laughs> bàyyi ba bàyyi ba ci kanam fàtte ñee wax ni mu lu rëy xam nga fàtte ñee tam écrivain la <laughs> xam naa daf ma bëgg a wax ni sa français lii ngay liir mënoo liir parce que Fati bindkat la donc day bëgg ngay prononcer bu baax euh, day bëgg booy def nga def sujet verbe bu ah il veut pas nga mel comme ay paplaam nga xamante ni paplaam mënuloo wax sax ma mère va non mais c'est grave j'ai écouté son message euh, euh, tout à l'heure en attendant euh, ñu euh, bàyyi leen ak publicité yi il est 12h54 joxaat ma benn dose Viviane en attendant journal bi naata di ko présenté juste après journal bi nag dinañu ànd ak sunu invité Diady Niang chef de travaux de renouvellement et de réhabili et de réhabilitation ca ONAS ñu ngi waaj a dugg ci nawet donc baax na ñuy sensibiliser allez on regarde cette belle chanson Viviane nag. naa leen jox ay information ci moom yëg ngeen ni day waaj a tëgg day waaj tëgg de fan yëpp da doon noppalu di dugg studio di génne ay woy di dem Los Angeles euh, di dem Paris euh, di dem ay Cannes mais là euh, dafay préparer ay soirée week-end bi fii ci route des Almadies je vous donnerai euh, ces dates mais en attendant ñu déglu euh, par force ñu bégal ci suñu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk ànd ak ñun euh, ci télévision Futur Média ñu ngi nuyu suma xarit Laurent Tall Laurent mu ajaa ne ne commet ci dëkk bu ñu naan Luxembourg moom nag mu ngi préparé ak ñi mu àndal soirée bu mag boo xamante ni yéen du lay doon ci Luxembourg ak Adja Soda Bousso ñu ngi ndokkeel bu baax Adja Kine Diouf Yatma kooku suma chéri c'est mon amour maamu Bijou Ndiaye euh, yaayu ma ami ñu ngi koy ziar bu baax di bégal di béggee itam euh, Alice Newman euh, ñu ngi koy souhaiter moom itam une très bonne journée allez on écoute par par force et puis après on va se retrouver pour le journal en attendant ma déglu message u Faty